voilà mi ngi noonu ñu ngi taxaw ak nag euh, suñu benn grand fekk ko fii ci biir euh, siège bi xaaral ñu nuyu ko rek mu wax ñu mooy kan ci Alioune Badara Kébé sëñ bi nuyu naa la. waaw ñu ngi lay bu baax. tur bi nan la. man Youssou laa mm-hmm. tey dañoo ñëw fii ci siège u Alioune Badara bii nekk fii ci HLM Grand lan nga ci Alioune Badara. xarit la. sama waay la dañu yàgg trop. man maay gaynde yow yaay. gayndeem maag moom a dëkk ku baax la nag xam nga nit mun nga nekk ak moom te doo xam ci moom lu bari mais boo dëkkee ak moom mun nga xam ci moom lu la bett mm-hmm. parce que dafa am lu ma impressionné ci moom mooy mm-hmm. dafa am diine mm-hmm. dafa yéwén ba nit ñi fi ñëw man dañ ma fi fekk lu ne laay dégg mais may sax dal sama kaw ne ma dee leen indi nañu ñëw. dëgg la social bi dafa bëri. Mm-hmm, journée bi dugg dafa bëri. Mm-hmm. siège bi maanaam mën naa ne siège bi pour football bi la woon. Mm-hmm. léegi football bi social bi nangu na lépp. ñun ñi nekk nag dañuy jànkoonteeg lu ne waaye moom dafa oyof te njiit te dee njaaxaanaay lu ne mën ko am. avant ngay ñëw fii ci siège bi fan nga nekkoon. man fi ma jaar bari na de. parce que léegi nii bu ñu déggee ci biir wax jotoon nga fi am ay problème nekkoon ci prison bi ak yooyu. waaw def naa ci prison bi cinq ans dama daan jaay ay biyamba di dugg ci lu ne. waaye ba mu ñëwee fii ci kër gi ma toog ba am benn bés ñëpp ñibbi mu ne ma yow de sama xarit nga. te mënuma laa wax dara ma ne ko waaw mu ne ma wante damaa buggoon nga génn ci lépp est-ce mën nga loolu nga ñëw toog ak man ma ne ko bu baax yàlla nag suturaal ma tam ba ma toogee ba tey baax nga bàyyi lépp ñëw toog fi waaw parce que àdduna amul solo bu doon jëf la rek ak ñeme mooy maye ñun am nañ bu yàgg kon duñ ko jege ndax amul lu ñuy ragal jaar est-ce yow bi nga bàyyi lépp ñëw fii boobu ba léegi mu ngi matal lim la doon wax. bu baax. est-ce duy ëpp. léegi nag ñu ngi nii toog ak le pro l'international muy ba euh, Badara Kébé un fils de Grand Yoff pour Grand Yoff laata loolu nag dama koy laaj moom ah doy na waar dem <laughs> parcours bi <laughs> il faut nag ñu waxtaan ci Alioune maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. di eh, kontaan trop si teewaayu waa info réew mi. Mhm.

ñun ne est des acteurs de développement donc euh, suñu yàlla dimbalee ñu dem liggéey ñibbisi li ñu liggéey ñu domaine bi ñu doon yëngatu di sport ñu mën ci créer centre ba mu nekk club ba xale yi di ci tukki di dem bitim réew vraiment war nañoo mën a xool naka la ñuy participer ci développement gox bi ak dëkk bi defe naa ni loolu doo ko mën a def tànk bokkuloo bokkoo mooy tànk amuloo ndombal tànk tànk constitution falu la ndax nga mën a liggéey li nga yéene. voilà. mais Alioune euh, dañu gisoon nga le président euh, bu équipe football bu HLM Grand Yoff tey jii boo ci politique est-ce que du la yàqal ça non man je suis pas un politicien hein je suis juste euh, xam nga les politiciens ils veulent nous faire peur ñoom dañuy wax ni politique ne bu ko def bu si dugg continuer li ngay def te te aujourd'hui, eh, vraiment nit boo dëkkee ci politique li nga bëgg defal sa gox doo ko mën a def tànk amuloo ndombal tànk parce que tey jii mën nga volet boo ci xalaat rek li nga li nga yéene pour liggéey il faut que ndombal tànk il faut que constitution fal la comme ni ma ko waxee ndax nga mën a liggéey donc c'est la population qui vient vers nous pour nous dire que vraiment que vraiment bëggoon nañu nga doon lii bëgg nañu nga doon li parce que gis nañu yow li nga leen yéene wala li nga leen di defal par tes propres moyens wala ni nga koy lijjantee pour jàppale leen donc ñu ni ah, ki nga xamante ni mi ngi lijjanti wala di jël alalam di la jox kooku soo ko dénkee sa alal dina si mën a gën a liggéey te boo xoolee localité bu mel ni Grand Yoff ñun amuñu dara donc on est vraiment en arrière par rapport à d'autres localités d'autres maires yi nga xamante ni d'autres maires yi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi. ñu ngi ci Sénégal loolu rek moo ñu poussé population bi nit ñi ñooy ñëw vers ñun di ñu seet si di ñu wax seeni coono di ñu wax ñoom li ñu soxla te vraiment yaakaar nañu ni bu ñu amee nombal tànk dinañ mën a ko def ndax ñu mën a gën a créer ay emploi parce que bu ñu déggee ci kàddu waa Grand Yoff ñoom li ñu bëgg mooy nga nekk seen maire lan nga xam ci loolu waaw loolu en 2014 laa ñëw vacances Euh, fait Khalifa Sall di xëccoo ak Mimi Touré ñom ñaan ñëpp seet mais j'ai eu à appuyer Khalifa Sall jappalé ko euh, pour me gagner mairie bi ndax euh, lu ma waxoon mooy yaa dox ci sport ak social suma jëlé mairie bi dina la ci jappalé bu baax baax bon de 2014 à maintenant mon année ni 2014 la gëj gis mais ça m'a pas empêché de continuer mon travail li may def ñom suñu ay wajur lañu rek xëy na euh, nombre tank, vice vice vice versa mhm. quatre ans après vraiment euh, mais il m'a permis de sillonner les rues de Grand Yoff bi maternité bi vraiment Grand Yoff ni ñu mhm. Grand c'est euh, électorat Grand mhm. mais période élection

tout que lu bokk donc c'est un mouvement national mais on commence d'abord par suñu localité bi di Grand Yoff comme li wax rek nan béy ci say tout le temps quand j'ai des quand je suis invité wala quand des jeunes j'ai des interviews je parle que de Grand Yoff di yow bëgg nga Grand Yoff de man ne nit ku nekk fa nga am ngay tiitaroo j'habite HLM Grand Yoff mais tout le temps je parle au nom de Grand Yoff je dis que man doomu Grand Yoff la te bu may défar dama wara a commencer fi ma fi ma dëkk parce que Grand Yoff localité la bu nga xamante ni bu bu bu am solo la loolu moo tax ma yaakaar ni ku ko liggéey rek euh, di nga am yaakaar pour mën a yor leneen te vraiment ndaw bu bëggee da nga koy jox parce que dina bëgg liggéey su fi bëggee yàgg il faut mu liggéey parce que soo liggéeyul dañ la fiy jëlee donc voilà loolu mais dañu gis euh, ci social bi nga gën a appuyé wu social bi danga koy def ngir bëgg am Grand Yoff ngir bëgg am nit ñi wala wala koy def rek en tant que doomu Grand Yoff non social bi xam nga tey euh, mouvement bi deux mois la mat man footballeur la won donc social bi yag na ci bobu dem guma sax bima amulé dara dama dan dama dan jël sacc ceeb suñu kër ak dëwlin djéggi talé diko mayé parce que gissone na ne vraiment nit ñi xaw nañu fatigué touti mhm. donc social lu yag lu yag ci man ba nima tuké dem Europe di football chaque mois mun naa ni sama salaire musul fekante lu ëpp ci sama salaire dama ko don envoyer pour dimbali doomu aadama yi parce que fofu lañ toll tay nit mom boy boy ñëw do indi dara boy dem do yóbbu dara ku si nekk rek ak sa mission bi nga wara dox et je pense que le social ça fait partie de moi lu bokk ci man la lo xamanteni ni mënuma ci dara donc social même les sinistrés de 2012 ñep ñu ngi koy fatali fàttaliku j'étais venu en vacances deux semaines là amone pourtant je suis resté un mois on nourrissait plus de 400 personnes si école HLM Grand Yoff donc état fa lañu fekk té la fa indi lépp suñu loxo la ko teg parce que daf ñu fekk ñun ñuy def donc je pense que social dal yaakaar naa ne lu mu judd fekk la fi rek lu yàgg si man servir et non se servir lan moo yëkkati kàddu boobu. servir et non se servir mooy Sénégal Sénégal c'est un pays pauvre pourtant nos dirigeants c'est des milliardaires. Sénégal amuñu xaalis ba tax ni dañuy leb dañuy jéggaani pour wuti dañuy ñaan dañuy leb dañuy dem lépp pour defar aéroport lépp pour defar autoroute lépp pour defar leneen ak leneen mais teewul que nous nos dirigeants c'est des milliardaires et que loolu moo tax ma ni euh, mais ñoom fan lañ jëlee xaalis boobu il se sert de notre argent li ñu moom la donc moo tax ma génne slogan servir et non se servir da nga wala servir sa dëkk ba tey di ñoom ñoo lay comme Grand Yoff ni mu demee rek Grand Yoff ëpp ma fi xam-xam maguma fi mais ñoom ñoo gis ni vraiment war nga leen mën a li nga leen servir moo tax ni njëriñ bi nga leen amal moo tax ni ñu war la mën a bëgg jox ndombal tànk donc loolu moo tax ma ni servir et non se servir mm-hmm. Sénégal dem na ba politique métier la mm-hmm. parce que da ngay jàng ba jeexal sax ñun la soo politique doo doo am dara donc les politiciens ñoom affaire boobu ñoom gañ sa moon yi lañ ko def mm-hmm. dawalkat kaat yi yor xaalis bu bëri bi man ça me ça, ça ça me fait mal un pays pauvre comme le Sénégal comment les gens peuvent être milliardaires naka nga wax ni yow social nga ba pare nek milliardaire donc c'est waaw ba pare ñoo ay julit lañu quoi des fois ça me fait mal mais je le garde ma ne naa rek li des ma bàyyi ci loxo yàlla. gannaaw fi mu toll nii euh, li ngay xëccu moy don maire bu Grand Yoff tey jii looy wax ma président Macky Sall. président Macky Sall lu ma koy wax moy je ma lu bëri wax parce que man xaw ma euh, je l'ai jamais vu c'est le président des Sénégalais c'est mon président mu koy ñaanal gudd fan ak wér mu le mandat am si jàmm mais li ma metti rek c'est que ñun les jeunes yi nga xamante ni dañ demoon des indi suñu créer emploi on on a investi dans le football je sais même pas combien de millions et que ñun amuñu jàppale si dara les gens Grand Yoff ministre amnafi, l'une fi lu nek amna fi ñom buñ ma soxla rek moy élection élection bu amé ñom ñëpp ku si nekk ma sersi. C'est gis nga su élection passé duma ci si gis kenn mm-hmm. social bi ñuy def pendant le ramadan ou autre ci prison yi ci hôpitaux yi on du kenn si ñoom ku si mës a ñëw sax yëkëti ben affaire ni nañ ci japp té bu élection amoon légui nga gis leen ça cœur ça me fait mal que yaakaar ni ñom mom ñi nga xamanteni ñoko nekkal Grand Yoff wara a ci population bi war a nit ñi nga xamanteni vraiment ils sont vraiment dans le besoin je pense que lolu liggéey bobu matul parce que su demee ba nga xamanteni ñun ñi nga xamanteni on n'est pas des politiciens on peut on peut on peut on peut on peut rassembler plus de dix mille personnes à quinze mille personnes et, et, et les gens viennent vers nous pour nous dire que on veut que vous on, on veut que tu tu sois notre maire mm-hmm. kon ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy wacc sur le terrain mu yoni len fi man xaw ma ñoom vraiment lan mooy seen liggéey. mais dañu gis euh, Badara Kebe bi mu jógee Europe li mu njëkk a def mooy way lan moo tax Badara Kebe doon noonu waykat wala ba léegi yaa ngi koy yaa ngi way. non xam nga xam nga tey euh, peut-être la musique m'a toujours accompagné soo xoolee ñun bu ñu nekkee xale génn fii dem bitim réew di football euh, maanaam tey ñun musique mi bu ñu daan déglu musique daf ñuy yokk jomm comme nga déglu Youssou Ndour mu naan àdduna bi ku fi bëgg a tekki di nga numéro ba tas xam nga lamb ji benn mbër yooyatu fi bi nga nekkee xale tu n'es pas conscient xamoo lu muy wax mais soo màggee ngay comprendre vrai sens du mot moom lan la bëgg wax mooy fii rien n'est facile rien n'est donné loo bëgg rek da nga war a dem jëli donc man la musique je daf daf ma doon yee di ma jàngal et que euh, j'ai toujours chantonné parce que que je may que pays je may nekk man rek maay donc dama doon chantonné faut la musique footballeur tout le temps des casques. casque musique musée bokk si ma donné. même si j'ai appris le Coran wàcc le Coran, je suis un musulman hein, voilà on m'a bien éduqué mais la musique m'a toujours accompagné en 2006 je suis allé à Paris la nek ak Paris, comme sama xarit là ñu ànd ma def trois jours au moom studio c'est comme ça que la musique m'est venue pour chanter mané dama bëgg way dara mané mané acoustique la bëgg way et quand j'ai chanté les gens ils ont apprécié et bi ma ñëwee Sénégal ñom wa Ramdan ñoma ma musique acoustique ma def single et tout génn après j'ai fait deux trois sorties génn jouer Just For You ou autre mais ma famille n'a jamais aimé. Tu ma mère ne veut pas, ma famille. Les gens me disent toujours que tu n'es pas fait pour faire la musique. Je dis, mais c'est ma passion en fait, c'est une passion. Et à travers la musique, je peux lancer des messages. Parce que nous avons des mais des musique. Donc, musique, vraiment, passion. Là, mais Quel titre tu as gagné la musique J'ai gagné euh, sama non, yaa tax may góorgóorlu parce que tout le temps damay dégg ñu yoon ni soo amee noonu da ngay day tax ni doo bëgg def lu lay reewee da ngay yokk jom génn naa def naa euh, def naa boo xamante ni Sororo c'est une musique kii euh, la chanson euh, armée la parce que j'étais dans l'armée quand voilà et bi ma nekkee Bango on m'a appris foofu laa ko jànge woon et que je voulais rendre hommage un peu mes mes mes mes frères yi nga xamante ni ñoom laa nekkaloon ci armée mhm. donc yooyu yooyu laa def ak yoo xamante ni j'ai pas pu le sortir quoi dama ko <laughs> dama ko defoon noonu rek acoustique après j'ai gardé. incha allah info réew mi dina ñëw ànd ànd ak yow ci liggéey bi. dinaa si content trop. dinaa si merci beaucoup. voilà Babacar Ndiaye Soda ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax Betty in the house nii rek lay demee saa su ne neenaa leen émission découverte la na ngeen ma xaar yéen ñëpp politiciens yi bàyyiwuma musiciens yi ma kenn ku ci nekk rek ci wàllu bi ngay yëngu ci laa lay fekk si incha allah rabbi ma leen di bëggee bu baax a baax a baax Penda la réalisatrice ma lay bëggee lu bëree bëri sama xarit sama doomu ndey ah, Babacar Ndiaye Soda lim ñu waxal yëpp garaawul nañ ko gérer rek man ak yow bëgg naa ci yow bu a baax Cheikh namm naa la lool fan yi manqué nga ma ak sama benn tonton bu njool bu Babacar Ndiaye Soda àndaloon tey xaw ma turam nag mais maa lay béggee bu baax reetaan na ndeysaan reetaan na bu baax <laughs> waaye ma it <laughs> kontaan naa ci yow bu baax xadi ndooy ndooy mbaari maram ndooy borom périg yu baax yi maa ngi nii fëlaare rek sànneeku Babacar mën nga ko daggee foofu ba beneen yoon <laughs>